que monsieur Faye ñëw na quand même. d'accord dinaa ko woo léegi. maa ngi bëgg a dee Ba na nga def. metti na. xam naa da nga loolu moo tax nag ma indil la verre bi nga xamante ni moo gën ci verre yi. verre bi nga xamante ni. soo ko defee sa bâtiment du mos a tànk. te it day yaxanal énergie bi nga xamante ni moo jëm sa climatiseur verre baa ngi nii. voilà. bii nag moo la sonal. verre bii moom moo nekk sama bâtiment bi yëpp. tollu day lëndëm dafay tàng. te mhm. am nañ climatisation mais ça va pas ba tey doxul. oui non léegi lu ci pexe. dem Mbaye frère bi nekk HLM. nañ dem. établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi ci wuti matériel lépp nga fa HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. jërëjëf sëriñ Tuubaa ndox maa ngi nii di ñëw mi wàcc nga xam ne yàlla da ngay kare waaw kon mbokk taalibe yi yéen a ko gis ni sëñ Muntaxa mi ngi ñëw moom it dafa egg si bis bi teeru sëñ Muntaxa bisimilah maanaam si liggéey bi xamal ne leen sëñ bi amul amul morom kenn la sëñ Tuubaa daa liggéeyal yàlla ah ne ko deema ma may waaw sëñ Touba amul morom ku am morom muy sa borom. waaw kon mbokk taalibe yi ñu la trop selen rek kon ñu ngi ànd ak Tawfekh Production kon mbokk taalibe bismillah loo xam ci bis bi bis bi barke Serigne Saliou Mbacké gis bi yàgg na mais sant rek Serigne Touba la ñam Serigne Touba moo ñëw fii tey barke Serigne Touba duñ ko réeju sama xol boo fees sëñ mu taxaa yàlla fi yàgg te wér yàlla fi yàgg mbaak baax yàlla fi yàgg bis bi rek bis bi wal am ni wal jën na fii tas ni ba ala mbugal ma sunna meg ta kese ñu moom jërëjëf sëriñ Touba réew mi Bamba mooy di ko moom sëñ Saliou noonu na ko yaay taawu mbir mi bi bis bi nga jébbal ko sëñ Touba bi sëñ Moustapha Bassirou nelawee saaku xaalis la génne ako fas ak ñetti xar ne képp ku yaakaar sëñ Basiru kaa tabal ci sa ñax dañuy yeesalaat njëbal kër sëñ Saliou mu dem ne groupe ci kanam sëñ Saliou ne ko sëñ Saliou tey yaa fi sëñ Touba sëñ Saliou ne ko xalaas Muntaxa taxa ñi nga àndal xamuñu waaye xam nga man xam naa Muntaxa mu ne ah mu ne ko li sëñ Touba yoroon lépp yaa koy taawul ba bis nga jébbal ko ko mu ne ko Muntaxa liggéeyi sëñ Touba bi bu matee sa loxo bu tedd bii ngay teg ci sama yaram mi defar ma ba mu jekk nga jébbal ma yàlla ak sëñ fekke naa loolu. jërëjëf kon dama koy nit yi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw. sant Serigne Touba bu wér. wër na yàlla ñoo ngi sant Serigne Touba sëñ Touba amul morom. billaahi sëñ mu ndaxa ak wér jërëjëf borom Touba Bamba. sëñ Bamba lañ yaakaar fii ak fañ jëm. lii moo ko waral bés bi moo ko moom moom lañ yaakaar. jërëjëf Serigne Touba. li nekk ci Masalik ñu la ana nan nga dundee liggéey bi. waaw bisimilah rahmaani rahim tey sant Serigne Touba naan jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba Serigne Touba amul moroom kenn la mbégte la ñu am te xam na ñun Serigne Touba moo ñu si tey kon lépp mbégte la barke maam Cheikh Ibrahima Fall loolu lañ dund tey mbégte mbégte rek barke maam Cheikh mbégte jërëjëf Serigne Touba Serigne Touba rek Serigne Bamba rek Serigne Touba rek Serigne Bamba

jumaa ju rëy la taxawlu samp ca biir diggi wil ba jumaa ja kenn du ko laajte fis na ne jant njoloor ba fu taxaw di ko ma faw xalam ngor ba ku ne ngi ba naa cëy ma saali ca taar ba